non dafa mel ni tey ak niñu ñu ni sol rouge di Gabriel kana sol lu vert lu lu bleu li maître El maître maître s'il vous plaît maître maître maître s'il vous plaît maître maître s'il vous plaît maître s'il vous plaît maître ici maître maître s'il vous plaît maître maître maître maître s'il vous plaît maître ici maître maître maître booy xaaral dem na leen. maître ko mi ngi noonu maître maître maître El Hadj Diouf. surtout man aussi dama dama toog di xoole xamatuma lan laa wax a def muñ ko lajé pour aji mu dem tontu maître El Hadj Diouf xamuñu woon il a refusé de parler donc ñu ñongi ni nii taxaw.

laaj. Adji Sarr ana biir mais comme bi nga waxoon te conférence de presse yaa ko waxoon. Gabriel Gabriel bàyyi ko tamit. Gabriel kan mu ngi koy gëm Gabriel kan mu Gabriel. Gabriel mu ngi koy gëm. maître maître oui maître Diallo moo tax ma lay delloo Adji Sarr a ngi doon amee Massa foo xool Gabriel Kane moo ko tere mu wax. waaw na ñëw na ñëw na jege si na jege si waaw na jege si na jege si. Adji Sarr a ngi doon mais Gabriel Kane moo koy bu ma. waaw Adji Sarr a ngi nii mi ngi doon wax mais après Gabriel Kane moo ko jël. nangu ko bàyyi mu continuer li nga xamante ne mooy waaw maître maître jegisil tuuti rek jegisil tuuti rek ñu mu am mën la am Adji Sarr ngeen gis noonu bu taxaw indi micro bi kan ana micro bi Hein. une confrontation entre l'inculpé Ousmane Sonko et la partie civile à euh, Mais en vérité, il n'y a pas eu une véritable confrontation dans la mesure où M. Sonko a quand même refusé de répondre non seulement aux questions de monsieur le procureur de la République, mais également aux questions des avocats de la défense. Parfois de conséquence, il y a eu en fait un nouvel interrogatoire, mais pas une confrontation en tant que telle. Parce qu'il faut se confronter avec quelqu'un qui, qui, accepte de parler. On ne peut pas se confronter avec quelqu'un qui, refuse de parler. Donc en gros, c'est ce que je voulais dire et c'est ce que je peux dire. Moi, je ne suis pas de ceux qui violent le secret de l'instruction sur la place publique. ci wolof lan mën jàpp ci wolof ci confrontation entre Adji ak Ousmane Sonko li ma mën mooy ak li ma mën mooy. en réalité confrontation à Moufa. waaw va seen Je va, ji mun a. Euh, répondre aux question procureur de la République nanguwul répondre aussi aux question avocat Adji Sari. Euh, donc c'est dans ces conditions que euh, l'audience s'est déroulée alors donc confrontation d'Al, ah, tax ñuy wax confrontation amu fa. rek man loolu rek laa leen mën a wax man bokkuma ci ñi nga xamante ni dañuy taxaw ci mbedd mi di le secret de la ñi doon wax naan procès verbal yi dafa réer est-ce que c'est avéré ça c'est violer l'instruction léegi léegi maître ñu naan procès procès léegi bi dafa réer est-ce du dëgg ñu doon wax ci mbedd mi yëpp dara Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup on pensait qu'aujourd'hui elle serait d'attaque, avec des preuves vidéo dont elle disait qu'elle avait à disposition et qu'elle remettrait au juge. Donc ce silence-là, Abyssal nous a étonné de l'organe. Et qu'il devait venir simplement formuler des preuves, des preuves au juge. Et on l'attendait sur ce terrain ainsi que, ainsi ses avocats. Mais on n'a aucun élément Et ils ont carrément perdu la bataille de la confrontation. Et ils le savent. Mais a affirmé que vous n'avez pas voulu mot Sonko n'a pas répondu. Sonko a été très cohérent dans sa ligne de défense. Sonko n'a pas voulu répondre aux questions des avocats parce qu'il leur a expliqué la raison. Je ne veux pas entrer dans le fond, mais cette raison Aguissard ah, ne vous le dira pas, ses avocats aussi, ses excellents avocats ne vous le diront pas aussi. Pour ce qui concerne le procureur, il a, il a dit en conférence de presse il l'a considéré comme un membre du communauté. qui Mais mot a répondu aux questions du juge, à toutes les questions du juge. Euh, Par contre, la plaignante n'a pas été cohérente. Elle n'a fourni aucune explication à son silence. Une centaine de questions lui ont été posées et aucune de ces questions n'a obtenu de réponse. Elle s'est donc morfondue dans un silence abyssal qui nous a tous étonnés parce que nous pensions que c'est une fille qui était d'attaque et qui n'attendait que ce jour. Hier, elle a fait une interview pour dire qu'elle n'attendait que le jour de la confrontation pour déposer sur la table du juge la preuve de l'existence d'un viol qui a été commis à son prix. Mais on a constaté aujourd'hui que cette fille n'a apporté absolument rien et que cette fille s'est barricadée derrière le silence. je l'ai expliqué c'est-à-dire nanguwul wax boobu dafa am lu ko indi ndax si njël Ben. dafa ne ki nga xam dafa jël accusation teg si kawam ñu jàpp sax ne lii lii moo ko waral kooku du ko mën a tontu. mu ne tamit ki nga xam ne lii ak lii ak moo indi démarche bi du ko tontu. donc tey jii silence suñu client dafa am mbëppët dafa am stratégie boo xam ne moo ko la waaye nag dama jàpp ne ki nga xam ne moo ne moom mooy parti bi topp indi ay tuuma bu paree ne woon dina am ay preuve yu génne tey jii génnewul preuve silence la indi.

bu dee daal droit rek lañ wax dossier bi noonu la yem. yakar nga ñu dem procès wala. non moy li may wax. Mhm. xam nga décision bobu juge bee koy jël. Mhm. té nag loolu souverain tam la ñu nangul ko ko. Mhm. waaye dañ ne ñun ay juriste lañ. li ñu gis ci dossier bi. té mo nga xam amul benn preuve bu ko lal. au contraire sax. bu ñu jappé né certificat médical bi nga xam mo moo tax ñu top nit viol dafa ñew sétal suñu client. japp nañ na non li mais aussi dossier bi nek di traîner entre les mains de la justice ak aussi dégâts perte de vie humaine aussi perte d'emploi donc est ce que yoon la vraiment Nicolas pour laas ko loolu yëpp. déet xam nga mooy li may expliqué booy wax droit droit la maintenant conséquence événement yi am loolu leneen la mais man dama ne dossier bo xam dañ japp ne viol la ñu ñew am certificat médical bi sétal suñu client preuve yi ñu doon wax ne am nañ ko vidéo yi ben génnul dossier bi non lii la war altercation jotul am ci biir non non altercation altercation amul audience bi déroulé na normalement amul woon ben incident voilà xam nga suñu client jigéen la mais ñàkk fay ndax ci daw rek xam ne ko muy Sonko mom lañ poser ay questions mu ne duma tontu ndax yow procureur complot bi yaa ngi ci biir

ñoom ñoom nañ wax ci biir mais man du ma xuus ci secret de l'instruction man daal li ma leen mën a wax mooy man du ma dugg ci dossier bi li ma leen mën a wax li ma yoon may mooy wax leen rek d'accord bi ñi bañ a tontu li tax Sonko tontuwul moo tax Adji a tontu waa preuve en tout cas preuve bi moom du jógee na que presse bi adu awma droit wax leen dara dara dara ci preuve yi awma droit wax leen dara dara ci ay secret de l'instruction mbégte bu rëy laa ci am o que magum jëmm bu fekkee ni nañ koy laaj bu dee tontuwul procureur du ma la tontu dafa ngay complot ci complot bi nga bokk loolu mooy waxee lan yow avocat bi du ma la tontu parce que nangam nangam jubawuñu

man ñàkk naa fay de tontu ay avocat voilà. ay waaw ku nekk bu la neexee nga nekk asamaan di nekk euh, bu daal sa kaw wala nga nekk ak weer ku nekk mën nga wax neex waaye waaye waaye waaye ku xel dal xanaa mooy aji sax moom mi nga xam ni ndeysaan gis ngeen ko. Ah, amul lu muy ragal day tontu. waaye bu ñu ne yow lii nag nga ne du wal tontu ah yow yow procureur ci complot nga bokk ah. yow yow avocat Adji Sarr du la doon ndax yow da nga ma yàq yàqalu mel ne xamee loolu mooy réponse koo xam ne yow yow lañ topp yow yaa nekk yow yaa am ay risque yow ko yaa war indi expliquer. mais mais mais mais mais dañoo wax ne ki nga xamante ne ci wax li ci biir yëpp li ci dëxiñ du ma ko tudd. mais la suite qu'est-ce

mais loolu loolu mais mais qu'est-ce faire dossier dossier viol grossesse. dossier donc mais mais mais mais mais maître la suite qu'est-ce faire. am na lan ngeen lan ngeen la ñu ne code la ah xëy na code la lu ma ci